bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalina sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain euh, mbokk yi dañ jël siwaat ci yi nga xam ne mooy yi fi jaar fan yi ci ay jokkalante ci ay wax nga xam ni njëlbeen gi ci wàllu leeral ay njuumte yoo xam ni Euh, Cheikh ak docteur Mouhamed Lo da caa tab bi ci benn audio bu cinq minutes boo xam ni dafa am mbokk mu ma ko yónnee euh, bëgg ci ay leerlu ci li nga xam ni mooy wax ya wax ci audio boobu surtout nag euh, lu aju ci wax ji mu wax ci duggub madhabu Malik ci réew mi kaña la duggamit ci Afrique sax surtout almaghribul islaami kañe la eh, mu wax ni ka ko fa dugal mooy abdurahman daaxil loola moo nekkoon sababu laajte ga laajte ba ma tontu woon ci leeral ni dafa juum ndax juum laa mën a wax ndax eh, xam naa ni boroom xam-xam la wax naa ko ci audio yooyu leeral ni boroom xam-xam la lu mu bëgg a xam te ñu bind ko ci arab mën na koo xam waaye nag dafa juum juumte laa ko mën a tudde duma ko mën a tudde réer donte nag njuumte lu fees la ñu wutal ko ci ngànt it te ngànt la mooy ñàkk jot ñàkk jot ndax xam nañu ni amul jot te it nag yenn saay yi nit la nga jàpp jàpp ni lii la wala mokkal gu yàgg euh, zaakira dafay ware war googu tax na daruratan borom xam-xam dafa war a di muraajaa la mu jàngoon saa su ne eh, waaye nag moom amul jot noonu lañ ko ca waxe woon waxtaan wa nag dal di barasti ku ba dem ci yeneeni détail détail yoo xam ni effectivement wax naa ci loo xam ni lépp lu wér la à cent pour cent ci imtixaal mooy jël yi muy jël yëfu jàmbur di ko askane boppam loola lu wér te bu soobee yàlla danaa tasaare yooya nga xam ni da koo jëloon ci ay yëfi jàmbur askane ko boppam danaa ko tasaare ndax yëpp ngeeg man ca bu njëkk ba nga xam ni yëfi jàmbur ya mu jëloon eh, da ko da ko dafa daf daf ko jëlaale woon ak muqaddimaam ginnaaw gi ba ma ko tanbiihee ay nit ñu wax ko ko ci la dindi muqaddima ba eh, loola yëpp dinañ ci ñëw waaye alhamdulilah usuliya mu ngeeg man la mu njëkkoon def ci siitam yëpp a ngeeg man ñaareel ba ñu leeral it la nga xam ni mooy jëflanteem ak Google jëflanteem ak Google mooy di ci jël ay fatwa yoo xam ne dañ ko laaj ay laaj yu ñu koy laaj mu cay jële ci Google directement yenn saa mu yett ci tuuti eh, ta taadilaat ko jekk-jekkal ko askane ko boppam loolu it bari na lool mu ne woon fatwaam yii Eh, nga gis mu bind ci fatawa eh, eh, fadilatu al cheikh al ustaad al docteur Mouhammad Ahmad Lo fatwa yooyu it la ca ëpp da koo imtixaal yëfi jàmbur la yu mu jëlee ci al cheikh google comme ni ma ko waxe woon donte sax dégg naa ñu bari ne ma it loola ma ko tontu keroog ca cheikh google laa ko jëlee waaye pour wane différence bi am awalan sax jëlewuma ko ci cheikh google Euh, maalumaat la yu yu yàgg ma ma tadwiinoon ko euh, ndax sama baxs euh, ca laa ko ca laa ko defoon def naa ci baxs ci mazhab Malik alhamdulilah yaata yaatu yaatal naa ci lool waaye jamono yooyu nga xam ni maa ngi wax wax yooya xoolu ba Google ca maktaba Chamila laa ko doon xoole donte mënees na ne it moo Google sore wuñu lool waaye nag jàpp naa ni sore nañ ndax maktaba Chamila ay téere la yoo xam ne dañ ko dajale ba mu mat ay junni junni def ko ci benn maktaba électronique jël ca ak jël ca Google du benn donte nag danaay jël ci Google nag danaay jël ci Google surtout lu aju ci taarix ak yu bare bare bari ci ay téere yu ma fay jële loola am na danaay faral di jël ci Google waaye du ma jële fatwa ci Google du ma jële fatwa ci Google te moom dafa jële ay fatwa yu bare bare bari ci Cheikh Google comme ni ma ko waxee man la ma jël ca Google ndéem damaa jël ca Google taarix la taarix la loo xam ni laa yakaadu yaxtalifu fii hisnaan ay mudawanaat taarix ya la euh, ndéem dam de la ñu jàpp ne foofa laa jële euh, te jëlewuma fa fa ma jële mooy ci maktaba shamila te danaa leen wan fa nga xam ni fa la nekk ci maktaba shamila lii ci muqaddima rek la ñu toll euh, moom nag day jël ci Google di ko askane boppam defaraat ko jekk-jekkalaat ko di ko askane boppam e, wuute nag e, moom yàgg na fi ci jamonoy saxaaba yi la wuute daan am même ci jamono yonent bi daan nañu wute ci ay masail kii wax lii kii wax lii yenn saa yàlla àddu ca wàcce ci alxuraan ànd ak benn parti bi comme muwaafaqaati omar yi na ngeen ko xamee waaye nag insaaf ak maandute ci wuute ah, daa bariwul ku nekk a ngi woote insaaf waaye insaaf lu néew la ci muxtalifuun yi lu néew lu néew la ci muxtalifuun yi eh, taasub moo gën a bari ci eh, ixtilaafaat yi te taasub moom dëgg-dëgg du jikkoy boroom xam-xam jikkoy juhalaa yi la eh, jikkoy ñu néew xam-xam la te aada la nag ci sama gaañi aada ak taasub ndax gis ngeen jamono yi ñëpp a ngi wax gëj naa dégg lu am riir ci masala ilmiya eh, mu am riir mu tolloog masala mi te man nag dama damaa tawat comme ni nga koy waxee fan yëpp eh, ba may wax loola booba maa ngi tëdd tey laa xaw a sawar sax yàlla seere na ni rek maa ngi jóge hôpital waaye ba wax loola maa ngi tëdd bañ ma laajee ma xam ni lii am na fu ma ko gisoon fu ma ko dencoon eh, ma xam ni sama baxs la ma ca bindoon xaw na maa sori ma yóotu sama ordinateur jël date yooyu mu nekk la mu nekkee ci sama ordinateur te dinaa ko diviser incha allah ca na mu nekk ci maktaba shamila jàpp ngeen ni eh, ca Google laay jëlee na am mën naa caa jëlel masala yu mel nii ndax lii laysa masala moo xam ni ci day dellu ci fatwa wala ci fiq laaj mbir la mu aju ci taarix te nag amul fenn foo xam ni taarix mënees na ko faa jële fu gën a yaatu Google loola moom nañ ko ne ko xam ne ko ñëpp xam man masala taarix ya laa jële ci Google ndéem jële naa ci Google te alhamdulilah ci maktaba chamila laa jële loolu eh, surtout nag eh, version bu mujj bi al chamila zahabiya eh, insaaf comme ni ma ko waxee bariwul taasub fil xilaafaat coow li bari naa coow li li tax mu bari ci masala mi mooy dañoo laal koo xam ni jàpp nañu ni muqaddas la maasum la kenn waru ko laal ñaareel bi man ci sama bopp man maa déranger damay déranger man dama leen di déranger lu bare bari bari tax na ma leen di déranger Euh, comme ni leen xaadim bu sa di déranger mais ndax lan ndax euh, fa ñu jànge la benn jàpp nañ ku fa jàng rek boo fa jógee da nga war a nekk euh, seen al toppe da nga war a nekk di fas la ñuy fas gëm lañu ñu gëm nekk ca la ñu nekk loola la jàpp wala boo loolu nekkul it nga ne cell bañ leen bañ a dal ci seen kaw man dunduma loolu man xor laa gor laa amul dara lu ma tënk amul dara dara dara dara dara lu ma tënk la eh, ma tënk rek mooy sama pas-pas te damay sant yàlla loo ma fekk ma nekk ca rek loola laa fas te loola mooy sama gëm-gëm eh, kon ñu ñu xame ko noonu eh, gaañu nag aadatuhum mooy al al alfujuuru fi lxusuum te alfujuuru fi lxusuum ak caay-caay ci jamonoy xulóor dàgg sante te yonent saa sallam waxoon na ni loolu jikkoy naafeq la comme man dama leen di déranger Euh, euh, loola tax na bi coow li jógee dëgg la euh, xaw nañoo wax tuuti ci ci ci lubbu mawduu bi ci li débat bi waaye la ëpp ci sama jëmm ji la ñu doon wax jëmm ji du maasum wa maa ubarri'u nafsi inna nafsa la amaaratun bissu melu ma ni saaxibu maxataat fi xayaati yatim xam ni mundu an wulida ba tey lépp dafa positif ci moom am na ay négatif amaana am na ay jaar-jaar am naa ay jaar-jaar buñ ma waxaloon sama tux cigarette ndax daan naa ko tux effectivement euh, ba 88 laa bàyyi tuxum cigarette yooya jaar-jaar la yu ma mën a fàttaliku jaar naa ci yëfi xale yu bari nag jaar naa ci yëfi xale yu bare bare bari euh, loola jaar naa ci duma yu bari yoo xam ne amaana lii lay sama naasib Eh, ci ma ko fii wax waaye dama ci joxe benn misaal rek wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaaratun bisu kon waroon nañu tarkiis ci débat waaye dugg ci ay détails yoo xam ni dafa génn ci débat bi ngir taanu sama jëmm ji yooyu amul solo te danaa ci tontu ci mujjantalu leeralaat yi nga xam ne dinaa ko leeral insha allah pour wane ni loola yëpp eh, dara du dara lu dul fujuruhum fil xusuum fujuruhum wal fujuru fil xusuumi aayatun min aayatil munaafiq ak caay-caay xaste ci jamonoy xuloo surtout nga génn débat bi ñëw hors sujet di wax ci jëmmi ka ngay débaal loolu xaydatun loolu lañ tudde fi munazara ne xayda la ñaareel bi fujurun fil xusuum loolu du débat bi waaye bu tee danaa ci ñëw ngir leeral ni ñii seen caay-caay yegg na ci ittihaam nit bu fekkee ni mu xaalif nga ba may nekk ci ñoom kenn gënumaa baax ba nga xam ni maa ngi jàngale ci ñoom donte ba may jàngale ci ñoom sax nag du ma du ma du ma du ñoom bokkuma ak ñoom ala kulli xaal ndax euh, danaa ci joxe misaal ci Cheikhouna Faye daan daan ndax moo ma jàngal informatique en 83 en 2003 te docteur Mouhamad Lo moo ma boole ak moom pour mu jàngal ma informatique booba fekk na gëj naa gisee ak docteur Mouhamad Lo lu yàgg mu ma laaj ko dama bëgg jàng informatique arabe mu yebal ma ci Cheikhouna Faye moom moo ma ko jàngal. Euh, euh, mu jàngal ma informatique ci jamono yooyu ma koy jàng euh, dem na ba dëgg-dëgg ñu miinante mu doon sama rakk ju ju ju baax ndeysaan ñu séq lu bare bare bari jóge na ñëw na Casamance seet si ma fa lu bare bare bari ñu am yu bari yu ñu séq yu ñu séq ba tey nag diggante bi alhamdulilah mu ngi rafet daan na ma laaj jamono yooyu 2003 daan nañu waxtaan ba bu ñu waxee ma ne leen man muridiyun salafi murid laa salafi laa boo ko laajee Eh, dana la wax loolu bari woon naa li may wax loolu eh, kon eh, même damay nekk ak dëgg la da dënd bu yaatu moo tax sama jëflanteeg moom it ma comprendre amaana teg la ñu wax moo tax ma mën di jëflanteeg ñoom waaye comme ni ma leen ko waxee rek aadatuhum alfujuuru fi lxusuum wal iftira wattihaamul wattihaamul muxaalif wa rubbama yasiluna ila takfirihi wa ramyihi bil azaim tuumaal ku ñu wuuteel lu rée bu ne danañ ko ko waxal yenn saay sax danañ yegg ci def ko yéefar def ko mubtadi lu réy lu ne ci sofaan danañ ko ko tuumaal loolu seen jikko la moo tax dérangé wu ma ci ñoom danañ ci ñëw ci mu mujjantalu waxtaan wi insha allah am naa lu jëm ci njuum tey docteur Mouhamed Lo moom njuum te ya nga xam ni moom laa doon moo waral coow li yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp njuum te ak intixaalaat ilmiyaam ak sariqaat ilmiya yi mu def askane boppam lu mu moomul askane ay borom xam-xam loo xam ne waxuñu ko dafa feeñ sax nag ci lii mu askane muqri ca nafxu tiib mais muqri muqri moo wax ne abdourahman daaxil moo dugal madhab malik ca maghrib loolu danañ ci ñëw ndax nag abdourahman daaxil il faut ñu xam ni sax moom moomu ba muy dugg maghrib booba doonul buur ab daw làqu la fa woon ba muy dugg maghrib ab daw làqoo làqatoo ko fa indi woon booba waa dawla al abbasiya ñu ngi wër banu umayya di leen di leen di leen faagaagal moom muy làqatu juróomi at mu nekk ci daw làqu ba ba ba yolleeku ba fexe ba dugg Maroc booba du woon lu tus ab daw làqu la fa woon fa la jóge nag dugg Andalus mbokki umawi yul yamu fa fekkoon fal taffu xawlahu ñu dar ko nekk di def seeni pexe di def seeni pexe ba am doole dal di songa ña ñu fa fekkoon umaraaw yi ba mu ji mu yilif Andalus noona la demee waaye Maroc moom te moom ku déglu wax ja danañ ci ñëw ci kanam dafa ne moo dugg Maroc doon buur ànd ak dooleem ak i dagam ak i borom xam-xamam yoo xam ni ay Malik loolu yëpp dara wéru ci lépp dara du ci dëgg wérul donte dañ koy jàppe ni njuumte la ak gëj a mu raajaa masala yi te masala bi nag ñu xam ni dafa aju ci mazhab Malik te ñoom ñooñu ñëpp maa ngi leen di défier maa leen gën a xam mazhab Malik foofu sax maa leen ko gën a xam taarixan wa madaarisan wa kutuban ñoom ñëpp maa leen ko gën a xam amul mu dawe ko ci moom docteur Mouhamad Lo Euh, suma sëriñ la nag Omar Diallo nee na naay wax ni sama sëriñ la ndax jàngal na ma effectivement jàngal na ma sama sëriñ la jàngal na ma sullamun munawrab sama sëriñ la jàngal na ma sullamun munawrab maa dem ci moom fekk ma tàmbali woon sullamun munawrab ci Cheikh Abdoul Aziz Sy ña ma nekk ndaloon Mauritanie ñëpp al oustaz imam Hassan Seck xam na loolu al oustaz Abdou Abdoulahi Lam xamoon na ni maa ngi doon jàng ci moom Euh, ku mel ni euh, Demba Top xamoon na ko al mufattish Ousmane Ba xamoon na ko ñooñu ma fa nekkaloon ñëpp xamoon nañ ni dama doon jàng ci moom ca moom laa jàngee woon Sullamul Munawwar ba bunt bu mujj ba des ca euh, ma ma jóge fa ñibbi si ginnaaw gi ma dem Saudiya bëgg dem ci moom ne ko dama bëgg ba xam jàng man nga ko jàngale mu ne waaw mu ne ko dama ko bëgg a jàng mu ne ma baax na nga indi nga indi ko Euh, docteur Modou Abdoulaye Sall ak docteur Ilimane Ndiaye ma wax leen ko ñu ànd nusxat yi ma yoroon la ñu photocopie ñoom matn bi kese la euh, bu ànd ak ay xaasiya xaasiya bi bu xooy si ni ñu photocopie ko yóbbu ko ñoom ñu ne dañ koo bëgg a jàng ñoom it ñu tàmbaliwaat ko ca benn ga moom mu fekk mu yoroon ci ñaari charx charxu Damanhuri ak charxul muallif nafsihi mu jox ñu charxa boo yooya moo gën a yaatu ñu photocopie ko it ñu ko doon jànge ci téeréem booba ñu tàmbaliwaat ko mu jàngal ñu ko ictisaam tamit ñoom ñoo sàkk woon ci moom mu jàngal leen mu jàngal ñu ko ñu tàmbaleen doo ko ak man ma tàmbaleen doo ko ak ñoom waaye soriwuma soriwuma ci ma taxaw ñoom sax mu jëwuñ ko yeggale maqaamaatul xariir yi jàng nañ ko ñoom ca ñoom dars bu njëkk ba fekke naa ko waaye yitteelu ma woon yitteelu woon ndax xam naa booba ni gënuma koo man ndax maqaama alhamdulilah ba ma koy jàng dama ko doon mokkal booba mokkaloon naa ci fukki maqaama ak juróom benn seere yaag nasru ya ba mokkal gi sonal ma ma tànn nazmu yi rek ca la des di ko mokkal ba ñeen fukki ak juróom ñoom wéy di jàng ci moom maqaama jeexal nañ ko wala jeexaluñu ko xaw ma ko kon docteur Mouhamed Lo sama sëriñ la ndax jàngal na ma sama njàng ak moom nag foofa la yem amut leneen lu ca dolleeku kon euh, Omar ba incha Omar euh, Diallo incha allah sunu sëriñ la sunu sëriñ la kon fu ma koy tuddee danaa tudd ni sama sëriñ ak docteur Ahmad Mouhamed Ahmad loo euh, kon leeral gama leeral ay asariqaatihi al ilmiya loola dëgg-dëgg dafa leen a yëngal ñoom ñëpp. te loola euh, damay persister ci ni lu wér la ci indi ay firnde sariqaatam yooyu danaa ko publier euh, aslu fa mu ak fa nga xam ni foofa la foofa la aslu euh, fo li nga xam ni mooy ay nasam kon yi xaqiqa la yoo xam ni ab mukaabir rek a koy weddi goo xam ni yu jaadilu anhu bil baatil yu jaadilu anhu bil baatil ñooñu rek ñooy weddi lii nga xam ni moom laa tëral moom laa yeete ci ay intixaanaatam ci yu bari nag du tee nag allah danaa dellu wala dellu naa sax ci sitam mboolem lu fa nekk ca ay maqaalaat ak i muxaadaraat ak i ay xutab lépp jël naa ko euh, dugal naa ko sama ordinateur euh, incha allah bu ca nekk danaa ko topp benn par benn mu qaabale koog ay mavun naatam fañ ko fooge ndax euh, ku ñu ku sàcc benn yoon ñaari yoon ñetti yoon Ah, mënees naa njortu ni ah, loo def rek da nga koo jël feneen eh, lii nag li tax coow li bari wax nañ ko ndax ah, ñoom dañu jàpp ni eh, cheikhuna docteur Mouhamad Lo muqaddas huwa muqaddasun ladayhim ndax taqdis nit ki mooy nga jàpp ni laa yuxti wala yutasawaru fi xaqihi lxata ña am insaaf tuuti ci ñoom mooy ña nga xam ni bu ñu gisee mu tàbbi ci loo xam ni yellut wala wuute naag mën xëj ba mu leen jàngaloon ñu weddi ko génn ci mbooloom critiqué ko taxaw fële euh, na na na euh, rabiiyuun yi wala madaaxila yi defoon ak moom cay jamono ñoom congaan ñooñu euh, nañu defoon ak ñoom ak moom xam ne bari ci ñoom ci mbir mi dañu nekkoon ak moom ci menn mën xëj waaye amaana tagg gi mu tagg sëñ saaliw ak yu rafet ya mu waxoon ak moom ya mu waxoon ci moom ba mu génnee àdduna yooya tax na ñoom it fa xaraju alayhi kama xaraja alxawaariju ala ali ibn abi talib jamono yi tamit dégg ngeen audio yi ñëw ci bi mu waxee ni Cheikh mat Bamba ci sunna la nekk ña nga xam ne ñoo ëpp insaaf ci ñoom gën a maandu ci ñoom ñooñu ñoo ko doon critiquer ba am na ci ñoo xam ne génn nañ eh, ca loola mu nekk moom ber seen mbiri bopp ndax jàpp nañ ni moom it mubtadi la wa hakada al qawmu boo xoolee rabi al madaxila ñoom it daa iman eh, bari na ñoo xam ne inshaqu anhum ber seen yëfi bopp loolu bari na ci kon eh, ñoom taqdis gi ñu koy taqdis loolu moo waral du ñu mën a muñ mukk kenn di dal ci kawam waaw eh, comme moom it eh, munta munta nanguwul critique nanguwul ku ko critiquer aslan nanguwul ku ko critiquer ndax sama problème ak moom dëgg-dëgg la ko waral mooy mooy mooy woolu ma ca gannaaw ba ma defee émission ci al bida al xasana fekk ko kulliya ci anami woote bu xaw a yéeme sax euh, mu bëgg a def rek loolu la ñu tàmmoon daan ko gis jaameel islaam ya mooy iqaamatul xujja euh, la bëggoon def ci man euh, bëgg ma humilier ma jiitu ko ca ma jiitu ko ca mu mer génn génn saal ba ndax nanguwul critique te dama ko critiqué keroog ñu bari fekke nañu ko kon lii muqaddima la ci wane ni sunu problème ñoom dëgg-dëgg la ko waral du dara lu dut dañu am dégg-dégg ca nusuus ya ñu nit ñu am dégg-dégg ca nusuus ya am dégg-dégg ca nusuus ya mag ña mooy sunuy mag yi danañu ñëw sax ci la mu tudd mag ña ci ojoom bi yàpp ni am na yeneen mag yu jiitu sunu mag yi na am am na ay mag yu leen jiitu waaye est-ce que mën naa tudd kenn ci mag ñooñu moom kenn mënta tudd ci senegal benn turu boroom xam-xam bu jiitu xaali Amar Fall na am ay boroom xam-xam lañ foon waaye ñan lañu kenn xamu leen xamoo leen ba pare bëgg xam seen mën hajum njàng loolu nan la mën a nekke xamoo leen bëgg xam ca la ñu nekkoon kayf loolu nan la mën a nekke ñu ngi taxa ñu ngi leen di taxaddi ñoom ñëpp dale ko ci moom moomu Cheikhuna docteur Mouhamed Lo ah, Omar Diallo nee na naa koy wax sama sëriñ ndax sama sëriñ la effectivement Cheikhuna docteur Mouhamed Lo li ci mënuñu tuddal kenn ci boroom xam-xami Sénégal ku jiitu xaali Amar Fall mustahil munta nekk kon bu nee waxul mag ñi yan may mag lay wax ak mag ñooñu ñu ñu tuddoon fan la ñu dëkkoon ana la bindoon lan moo nekkoon seen manhaj wa ñu doon dund ana yooya xamu ko xamuñu ko keneen xamu ko amul kenn ku ko xam bay mën a xam manhaj bañ doon dund ba xam kañ lañu ñu doonoon ay mutasawifuun wala doonuñu ko yooyu yëpp incha allah danañ ci ñëw bi tafsil kon dañu jàpp ni moom maasuum la jàpp ni moom muqaddas la te mooy tere taqdisu shaxs eh, a tax na eh, ku laal Muhammad loo rek laal nga laalaake waaye nag eh, dinañ leen wax ni lii début la début combat bi la te incha allah duñu ci dellu ginnaaw benn yoon danañ ci dem ba jeex ci takk takk takk te nag di wax ni li jëm ci sama jëmm ji tey ci euh, enregistrement bi bu sooba yàlla danaa ci tontu ci seen tuuma yooya waaye bu weesoo tey moom lu ñu waxat ci jëmm ji duma ci waxati insha allah ndax ñoom wir na ni qawmun fujjaarun aw euh, xawmun fil xusuumi fajara fajaratun inda alxusum wal fujuru inda alxusum alaamatun min alaamaati nnifaaq comme ni ko nabi sallallahu alayhi wa waxee kon eh, ñu ngi eh, jëm incha allah ci tafsil ak leeral yi nga xam ni moo waral coow yi ci sama diggante ci audio boobu ñu nga xam ni dañ ko enregistré dama am ku ma ci doon waxal yàlla def audio ba tas tas ga it naqariw ma ala kulli xaal eh, naqariw ma benn yoon kon bu soobee suñu borom dinañ ci jëm ci détail yooyu incha allah jërë ngeen jëf aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaanirahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu di am ay alerte rek yu may def jëmale ko ci ñi nga xam ne ndeysaan ñoom dañoo bëgg diine ba nga xam ne bin mënta yóbbu seeni doom ñu dem jàngi ci école yi mënuñu leen a yóbbu ñu dem jàngi ci daara yi dañoo wut ay jàngalekat yu leen di fekk ci seen biir kër di leen fa jàngal loolu nag mu am danger bu baree baree bari boo xam ne daf cee nekkal ñi nga xam ne ñooy jàngulu boo xam ne dafa jëm ci seen bopp jëm ci seen i njaboot te jóge ci ñi nga xam ne dañuy def lavage des cerveaux ñu baree baree bari ci wahabit yi ñu baree baree baree bari ci ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñoo nekk di saaga ak a wax bon kilifa diine yi ci réew mi ak a jàppee kilifa diine yi ay ñi ëpp ci ñoom seen stratégie bokk na ci di def ay cours à domicile rawatina nag doom yi ñi nga xam ne xaw nañoo am tuuti koom-koom te yóbbuwuñ seeni doom ci daara yóbbuwuñ leen ci école wala jànguñu diine ñu leen di jox si ay cours à domicile genn wàll ci ñoom seeni doom ñooñu ñu ngi leen di détourner te yëguñu ci dara ñu baree baree bari dañuy xëy seeni doom naa leen bidaa ak bokkaale bu ñu tuddee Serigne Touba wala dara. loolu nag ñi nga xam ne xas nañ ko xas nañ leen réussir ñoom dana jafe pour ñu dindiwaat loolu ci seen njaboot waaye ñi nga xam ne ñoom bàyyeeguñ xel loolu ne ñi ngi raxas seen xelu doom yi di def ak lavage de cerveau ci seen doom yi ñuy jàngal te ñoom yëguñu ci dara par téléphone ak par par jamono yiñ leen di jox cours yi laa bëgg ñoo ñu bàyyi ci xel ñu bàyyi xel ne ñaar ñaara ñi nii wala ñett ñoo xam ne kenn ku nekk ci ci ci ci yooyu ñoom dañuy def ci xelu doomu jàmbur lu wuute ak la la la la way juróom nekk ci lu baax wala dara rawatina nag ñi nga xam dañoo nekk ci ay tarixa am ay doom bëgg ñu jàng diine ñu wut ay oustaz wala ay joxekatu cours à domicile yu koy joxe ci diine di leen fekk ci seen biir kër yi wala ñu leen koy jox en distance li ñu war njëkk a bàyyi xel moo di bu dee ñoom ñoom ñii nii ñoom wahabit yi li ngeen di njëkk a xool mooy bokk leen ak ñoom ngir li ñuy wax ngir ndax ay malik yu ñoo fi nekk imam malik mooy école bi nga xam ne ci la tarixa sénégal yëpp ci école imam malik lañ nekk tarixa yi nekk fii sénégal yëpp di liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci jàngale diine l'islam ak yaatal sunnaam yëpp ci ngirum imam malik lañ nekk wahabit yi bokkuñu sax ak ñoom ngir ki nga xam ne am ngir sax bokku leen ko nga bëgg a jël sa doom pour mu di la ko jàngalal di la ko waaral waxuma la tarixa sax moom tarixa sax moom waxaale wu ma ko waaye ngir sax bokku leen ko kon yaa ngi def erreur bu baax rawatina nag lañu làmboo ci ay ngaj yoo xam ne nii mu nga jóge woon ci kilifa yoo xam ne nii ñoo leen ko jàngal pour ñu di ko def ci doomu aadama yi di leen gëmloo ku bokkul ci li ñu nekk ñoom rek ab yéefar la ba dañuy considéré ña ñeneen ñi dul ñoom ñëpp ay yéefar nga xam ne tey bu ñu amoon doole ñoom dañuy ñëw bu rey leen ñu mel noonu képp ku jël sa doom jox leen ko ñu la koy jàngalal nala la leer na nga yëg ak nga njàkk a yëg cours à domicile yañ cay joxe ña nga cay raxasaale sa xelum doom di defaale ci moom wahabit googu te yëgoo ko loolu nag constat bu ma am la bu leer a leer a leer ci ñoo xam ne ñoom ci seen bopp sax ñoo ma ñoo ma ñoo ma xamalaale ne ni ñoom coow yi amoon ak wax yi tax na ñu remarqué ne am na seen doom yoo xam ne ni seeni xel euh, wahabit yi commencé woon na koo détourné ci ay cours à domicile yu leen doon jox. kon ma alerté waat ñi nga xam ne jotaguñ cee jaar ak ñi nga xam ne actuellement seeni doom ay nit a ngi ñëw di leen jox si cours à domicile ñu ñu jéem a xool ñi leen koy jox ñan la ci lan lañ ne tey jii tarixa bu ci nit nekk am na ay jàngalekat yoo xam ne xam nañ diine lislaam xam gu wér ba noppi xam tarixa yooyu xam gu wér yoo xam ne war nañ laa mën a jàngalal say doom walif ngay jël ay ay ay wahabit yoo xam ne nii la la ñu yor la ñu gëm du du du du du njàngaleem tarixa nga yor du njàngaleem sax na laay wax ndax bëri na yu ñuy weddi wala bëri na yu ñuy dugal ci seen biir ak yu ñu gëm yoo xam ne yonent sallallahu alayhi bu fi newoon du ko def yonent sallallahu alayhi wasallam amul kenn kuy wax ashadu an laa ilaaha illallah ku muy jàppee ab yéefar te ñoom dañu jàpp ne ku néewul ci li ñu nekk rek ab yéefar la ku mel noonu nag dafa mat a bàyyi xel ci muy jàngal sa doom ci école ak muy jàngal sa doom ci ay cours à domicile wala muy jox say doom ay cours en ligne wala muy jox say say doom say doom cours en distance di jaar ci whatsapp wala muy communiquer moom téléphone di laver cerveau am te yëguloo ko li ma wax nag waxuma ko ngir lenn lu dul dama dama bëgg rek yee ñi nga xam ne seenu bëgg tax na ñuy doxalee noonu beneen bi ci mooy ñi xam ne ay étranger lañ te nekk fi bëgguma jaar ci turu wenn xeet waaye seetlu nañ ñi ëpp ci ñoom ay boutique la ñuy faral di yor ak a jaay créé ay maanaam ay xeetu lu mel ni ay daara yu ndaw yoo xam du sax ay daara euh, du ñu yóbbu seen doom yi ci école yi ñu jàngi li ëpp ci ñoom du ñu leen yóbbu it ci daaray réew mi ñu jàngi parce que daaray réew mi doyu leen maanaam koom-koomu réew mi ak xaalis bi rek moo leen yitteel ñooñu itam am na ci ñenn ci nit ñi nga xam ne dañuy dëkk ak kenn ci ñoom mu yoraale as as as jàngukaay su ndaw ñu fay yebal seeni doom ñu leen di jàngal ñooñu tamit dañuy def lavage des di graver ak def ci xelu xale yi euh, pas-pasu wahabit ndax ñi ëpp ci ñoom ay wahabit lañ ñooñu nag ñu mat a bàyyi xel lañ ngeen bàyyi leen xel bu baax a baax a baax ñii daal bëgg naa képp koo xam ne yaa ngi joxe sa doom muy jàngi wala nga koy jox wala nga indi nit muy dugg sa kër ne dafay joxe cours à domicile ngeen bàyyi xel ci loolu ak même ñi nga xam ne dañu nekk ci école yi collège yi ak lycée yi ak yooyu am na heure yoo xam ne nii bu bu récréation amee wala dara dañuy dugg ci classe yi ne dañuy def daxwa daxwa moom ku ku gëmul yàlla wala gëmul yonent bi nga koy def mais ña ñuy wax ne dañuy def ci ñoom daxwa sax dañ leen a fekk ci lislam fekk leen ñuy dund sunna ñoom li ñu bëgg kay mooy dañ leen a bëgg a daxwa ci yóbbu leen ci njàngale Muhammad Ibn Abdul Wahab ci complicité ba mu defoon ak euh, buur yooye nga xam ne nii ci lañ sukkandiku woon di def li leen neex ci àdduna di rey ay julit ba ba ba ba rey mbooloo mu baree baree bari ci ci ci dëkki lislaam yi léegi nag ñi yor école yi euh, euh, surveillant yi ñi nga xam ne ñoo diriger école yi loolu lépp nañ ci bàyyi xel ne léeg-léeg dañuy jékki-jékki dugg ci biir classe ne dañuy def daxwa loolu du daxwa daxwa mooy nga dem fekk ku gëmut yàlla gëmut yonent bi nga woo ko pour indi ko ci diine loolu mooy daxwa lu yooyu yëpp nag dañ ko war a interdit te dafa dafa nekk lu lu dëggu dafa nekk loo xam ne euh, lu xaw a dangereux la surtout personne yoo xam ne nii dañuy jàppee seen i morom ay yéefar nga xam ne ëllëg amoon doole dañuy jóg songu leen ñooñu mat nañoo bàyyi xel ci acte yu mel noonu ba nga xam ne ëllëg duñ fi indi jëyee lii daal maa ngi koy euh, wax képp koo xam ne am nga sa morom moo xam ne xalaat nga ne mi ngi joxlu ay doom ay cours à domicile nga teel ko envoyé audio bi ba mu bàyyi xel ci loolu bu baax.